mbokk yi ñu ngi leen di jaar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen euh, tey dañu ñëw ci vidéo yi ñu doon defanteeg yéen euh, di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak ñun di rafetlu lool question yeeg euh, yenn commentaires yi puisque en chaque fois rek nit ñi dañuy faral di woo wala di ñu envoyé ay message si WhatsApp di ñu laaj affaires yi nu muy demee. Euh, xanaa ñu am benn taxaw seetlu rek bu ndaw boo xam ne euh, dañ ci bëgg yee sénégalais yi lu tax nekkul ne dañu gën a yeewu kenn wala dañu gën a xam kenn dara waaye euh, dafa fekk ne nit boo ko jiitoo fenn soo ko bëggee jàppale da koy won fan lay jaar te chaîne bi loolu moo ko tax a jóg. moo tax saa su ne ñu leen di ñaan ngeen di abonné wu ci chaîne bi di partager xam ne li ko tax a jóg du wone ne ñun ñoo fi gën a xam kenn wala dañu bëgg gën a muus kenn wala dañu bëgg a liggéey ci kaw kenn no euh, lii dañ ci yàgg puisque ñun ñi di wax ak yéen bi ñuy defar bitcoin 2008 fekk na ñu ngi commencé di di di nekk di dugg ci YouTube di ko gis 2012 bi YouTube bi Bitcoin di génn euh, fekkoon na déggoon nañu rumeur yi xamoon nañ ko waaye nekk bu ñu nekk Afrique moom moo waral jafe-jafe yi xam ngeen ne Afrique pour nga nekk fii pour nga def yenn yi dafa jafe loolu moo waral boobu ba léegi ñu ngi ci nekk di ci liggéey wax dëgg yàlla aussi ñu ngi ci gis suñu bopp kon suñu demee ba def euh, chaîne bi aussi c'est pour mën a yee yenn sénégalais yi nga xam ne dañuy doog dugg ci affaire bi. yeete bi tamit paasewul saa yi ñu gisee benn société dinañ analyse dinañ analyser société boobu xool ko gëstu ci ah nit nag mooy juum des fois mën nga analyser nga def lépp nga ñëw wone mu baax mën nga ñëw wone aussi mu ñàkk a baax moo tax ñuy wax tout le temps képp koo xam ne da nga bëgg investir ci en ligne gëstu ci société yi ñu lay wax mais dem ci ndànk-ndànk Euh, et puis nga bañaan bokk benn société loolu moo waral boo leen xoolee euh, société yi nga xam ne créé nañ ko fii euh, yi nga xam ne dugal nañ ay seen vidéo fii lii Spike Bay la société buy doog ubbi la ku mu neex mën nga dem nga gëstu nga xool vidéo bi topp lien de parrainage bi soo ko toppee dina la yóbbu ci site bi comme ça nga xam société bi nga xool seen plan su la doyee ah baax na nga dem dugg ci bu fekkee ne doy la aussi nga bàyyi plateforme yi euh, yeneen société aussi ñoo ngi fi audio bi bëgg naa mu xaw a gudd tuuti euh, boo leen xoolee nii vidéo bi kon boo xoolee ci suuf di nga gis lien moo nekk nii boo lu ma bëgg a leeral ci site bi directement bëgg naa aussi nit ñi bàyyi ci xel fii di nga mën a di nga euh, fii benn retrait ah, su la su la neexee aussi soo cliquer fii di nga mën a xam tudd société bi mën nga cee gëstu nga xool lii benn la ci société yi nga xam ne dañ leen doon benn la ci société yoo xam yi nga xam ne dañ leen doon euh, defal ay vidéo fii euh, am na yeneen société lu mel ni Imperio mu ngi fii Petronpay mu ngi fii yëpp ay société la yoo xam ne ñu ngi dox tey dañu leen bëgg a présenter benn société bu ñuy wax Wozur euh, lan moo waral aussi ñu dajale société yooyu yëpp mooy am nga benn cinquante mille francs mooy sa capital loo wóolu wóolu wóolu Petron Pay bul ko jël nga dugal ko foofu lu tax loo wóolu wóolu Imperio bul ko jël nga dugal ko foofu donte la société yi fi nekk yépp mel na ne moom moo ci gën a crédible puisque boo xoolee au niveau de gouvernement canadien ñoom dañ ko reconnaître comme société société bi di liggéey di wone ay information en temps réel chaque jour mu def ay euh, li nga xam ne bilan jox ko gouvernement bi yooyu yëpp gis nañ ko waaye du tere société société la rek d'accord donc euh, conseil bu ñuy jox bépp sénégalais boo xam ne euh, da nga bëgg a lancé wu ci lii pourquoi pas soo bëggee investir cinquante mille nga def fii dix mille def fii dix mille def fii dix mille bu yàggee investir nga sa cinquante mille quatre société wala cinq yooyu yëpp nga développé ndoo leen ndànk-ndànk boo amaatee cinq mille nga yokk fii ndànk boo amee dix mille nga yokk fee ndànk bu ëllëgee nga retiré fii sa xel dina gën a daal ndax su cinq société yooyu yëpp duñu faytandoo benn yoon d'accord su ci amee benn bu fayit yeneen yi dinañ mën a compenser Euh, société boobu dem donc yaakaar naa loolu moo gën a dal xel loolu nag suñu xalaat la rek nekkul conseiller nekkul ne dañ leen di jox conseiller financier wala ñun dañ ci am xam-xam ci côté finance ba nga xam ne mën nañ ñëw di leen wax ne dugalal fii sa xaalis wala génnee ko fii non ñun liñ leen di wax mooy loo xam ne ñun def nañ ko te def boobu ñu ko def moom moo ñu permettre tey euh, ñu taxaw fii di wax ak yéen puisque gis nañ ci suñu bopp waaw société bii ñu leen bëgg a tey mu ngi nekk mu ngi tudd wasir xam naa ne am bëri na ay sénégalais yoo xam ne dégg nañ ko bëri na ay sénégalais puisque nee nañ ñu jox nañ ñu sax numéro ko nga xamante ne moom mooy seen représentant fii ci ci Sénégal. donc bëri na ay sénégal yu bëree bëree bëri yu ci nekk euh, ñun dañu tàmm woon ubbi fa benn compte euh, développé ko quelque temps ñu gis résultats yi ñëw won leen résultats yi puisque jàpp nañ ne loolu moom moo ëpp solo compte biñ fa compte biñ fa ubbi aussi compte test la woon nekkul compte bi nga xam ne moom la ñuy liggéey réellement mais compte pour test la woon moo tax ñu ubbi woon fa benn compte bii bu ngeen xoolee total investissement li ñu investir ci compte bi yëpp mu ngi nekk trois cent dollars waaw tey jii may wax ak yéen compte bi li fi nekk c'est quarante sept dollars moom moo fi nekk waaw compte bi liñ ci retiré yëpp nga xam ne génnee nañ ko compte bi mu ngi tolloog neuf cent dollars xanaa mat na lii ñetti yoon. trois cent trois cent trois cent mu nekk neuf cent dollars loolu moo nekk compte bi il faut ngeen xam ne aussi Wozur am nañu seen monnaie bopp Wozur euh, li ngeen gis ni moom mooy direct yi maanaam affiliation yi ñu def parce dañu ubbi compte bi ñu doog ubbi suñu compte bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee nga xam ne de temps en temps ñun ci suñu biir Euh, su ñu bëggee su ci kenn bëggee dugg ci société bi dañ koy dañ dañuy jël compte bi ñu dugalal ko ko su ko defee mu affilié loolu moo waral lii ci suñu groupe personne ci la yem génnul c'est la première fois ñu def fi vidéo di wax ci Wozur euh, moom moo généré ni cent quatre-vingt-sept dollars suñu groupe de personne ñun ñoo def lii nga xam ne bëriwuñu euh, lii ci binaire bi li ñuy wax binaire mu ngi nekk quatre cent quatre vingt cinq dollars lii ci binaire bi lañ ko jot suñu investissement li mu génnee gun mu ngi nekk deux cent soixante quatorze donc eggagul sax trois eggagul sax euh, cent pour cent eggagul foofu donc dama leen di woon euh, kañ lañu ubbi compte bi euh, ma won leen aussi évolution bi ni mu demee ba fii ñu toll nii. waaw boo ngeen ñëwee fii investissement rapport boo leen xoolee compte bi ñu ngi ko ubbi le vingt huit janvier deux mille vingt et un janvier kon le vingt huit daanaka février mars avril ci ñetti weer lay toll waaw bi ñu koy ubbi trois cent dollars lañ ci dugal cash. moom lañ ci dugal benn yoon trois cent dollars moom lañ ci dugal euh, boobu ba léegi compte bi mu ngi liggéey mais lan moo tax bi loolu amee tey ñun ñu am pour mën a génnee ci compte bi neuf cent dollars te ba léegi bu ngeen xoolee investissement bi mu ngi commencé le vingt huit un mille vingt et te ba léegi investissement bi jeexagul moom moo nekk nii ba léegi investissement bi jeexagul waaw donc investissement bi biñ ko biñ ko duggee le vingt le le vingt huit premier mois euh, janvier deux mille vingt et investissement bi deux cent jours la war a durer trois cent dollars yii deux cent soixante quatorze dollars yi dafa war a dem ba nekk neuf cent dollars puisque Wozur ñoom ñu ngi fay euh, trois cent pour cent seen seen gain yi loolu la mais ñun jot nañoo mën a génne fii neuf cent dollars tey bu société bi tëjoon tey ñun pertuñu ci gagné nañ ci ñaari yoon te récupéré nañ suñu xaalis tey tey tey jii may wax ak yéen Euh, biñ ko ubbeeg léegi bu ma tee trois mois xam naa côté yooyu la tey jii may wax ak yéen bu société bi tëjoon tey ñun récupérer nañu compte bi moom ñun pertuñ ci xaalis bon lan moo waral lool lan moo ñu may loolu te ba léegi da ngeen di gis ne dese nañu ay sept mois wala lu ëpp six mois dese nañ ko ci kanam loo xamante ne ñun dañuy continuer di récupérer fii suñu xaalis mbokk yi. lii du ay caaxaan du ay waxu naxasa xandang comme ni ko yenn sénégalais yi di waxee non man ñun waxuñu kenn aussi nga ñëw nga investir fii li ñu def moom lañ leen di nettali kenn ku nekk yaay xool bu la doyee nga def bu la doyul nga bàyyi société bii di Wozur am na monnaie boppam kont bi jënduñ ci bien sûr jënd nañ ci mais du ci compte bi société bii di Wozur bientôt danañu commencé di jaay ay billets d'avion seen mone bopp bi nga xam ne moom la ñu yor ñoom Wazir actuellement boo nekkee Sénégal mën nga ci jënd crédit mën nga ci jënd orange mën nga ci jënd tigo mën nga ci jë sax facture Senelec donc yooyu yëpp mu ngi nekk ci business Wazir bi donc loolu ay ay mbir la yoo xam ne yu am solo la te jàpp naa ne Sénégal bokk na ci réew yi gën a dugg ci biir wasir waaw puisque bëri na ay réew yi nga xam ne dañoo nekk si biir wasir euh, te bu ngeen xoolee léegi mën naa leen ko won euh, su ngeen xoolee ci franchise yi li nga xamante ne moom moo fi nekk ci Sénégal ci ay franchise moom laa leen bëgg woon réew yëpp ñoom ñoo nekk nii mais man Sénégal rek laa leen di woon ñi nga xam ne dañ ci investir seen xaalis nekk fii ci biir Sénégal comme saa su boobaa yéen aussi ngeen xamaale waaw gis ngeen lii ngeen gis nii ay français la ñii ñëpp ay sénégalais lañ waaw donc soo leen xoolee lii hmm, lii lépp ay Sénégal ay sénégalais lañu puisque wasir boo ci investir il faut nga nekk il faut nga sélectionner réew bi nga nekk mooy senegal nga doog a jaar ci franchise yi franchise yi benn bu nekk dix mille dollars la lii yaakaar naa senegal la. Hmm. waar 1992 Dakar lii lépp ay ay ay kii la hmm? Touba 18 safar yëpp ay sénégalais la yoo xam ne dañu investir ci société bi donc euh, euh, mu ngi noonu kenn ku nekk yaa ko gisal sa bopp investissement minimum bi cent dollars la maximum bi moom yaakaar naa ne beneen affaire la waaw puisque plan yi bëri nañu. Euh, am na plan boo xamante ne cent dollars ba cent dollars ba gis nga seen plan yi ñoo nekk ni cent dollars ba huit cent huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dollars neuf mille dollars ba trois mille nangam sangam quatre mille dollars soixante quinze mille dollars cent vingt cinq mille dollars deux cent mille dollars ba cinq cent mille dollars yaakaar naa foofu la yem ci investissement yi nga xam ne ñu ngi koy def. Euh, ñu waxoon tey ne dañuy ñëw pour defar leen rapport bi nga xam ne gis nañ ko ci société bi boobu ba léegi mu ngi ñuy fay euh, temps plus que tamit ne Wozur boo ci amee compte keneen am ci compte mën nga jël li nekk ci sa compte nga envoyé ko ko directement maanaam boo nekkee tey Dakar wala nga nekk Tamba wala Ziguinchor foo mën a nekk ci biir Sénégal soo ubbee sa compte Wozur su la neexee nga contacter ñu. ubbil rek sa compte nga contacter ñu wax ñu ne danga ubbi sa compte da nga bëgg ñu activer la même bu fekkee ne du ñun ñoo la ñun ñoo dugal Wozur ci keneen nga jaar bu la neexee na la jox lien d'affiliation nga dugal ko nga activer compte bi su ngeen bëggee su ngeen laajtee naka la ñuy activer compte bi mën nañ leen ko defal ñu defal leen ci vidéo won leen inscription bi nu muy demee lu yomb la retrait bi mu ngi dox diggante le premier ak le seize le chaque le premier da ngay retirer su la neexee chaque le seize da ngay retirer su la neexee mais defuñu lool rek tëj bunt yi déedéet <coughs> dañu ne la société bi soo ci defee retrait le premier wala le seize dina la fay sa xaalis waaye bu dul loolu soo gisee koo xam ne moom comme ku mel ni ñun boo yoree sa compte Wozur mu am ay bitcoin ay dollar nii nga ñu da nga bëgg a retirer su la su suñu waxtaanee ba d'accord da ngay jël li nga yor ci sa compte yow nga envoyé ñu ko mu ñëw fii su ko defee ñun ñu jël suñu xaalis ñu fay la naka si naka sa noonu tamit bu fekkee ne foo mën a nekk ci biir Sénégal amal sa compte Wozur wala société yi ñuy présenté yépp am ko bu la neexee soo bëggee retirer. di nga jël suñu numéro téléphone dina nekk ci suufu vidéo yi ah, ah comme par exemple nii boo cliquer fii ma lii vidéo la bu ñu bu ñu publier vidéo vidéo bi ñuy defar nii buñ ko publier fii lay nekk soo leen cliquer fii ci plus bi plus bi soo leen ko cliquer ci suufam di ngeen gis dinañ fa bàyyi suñu groupe bu WhatsApp fii boo fi cliquer directement ci suñu groupe bu WhatsApp la lay yóbbu soo commenté fii tamit bu la neexee nga commenté fii ci suuf su ko defee boo fi bàyyee benn commentaire ñun dina ñëw ñu tontu la boo fi bàyyee sa numéro téléphone dinañ la contacter su fekkee ne da nga bëgg aussi boo jë boo duggee fii di nga am suñu numéro téléphone te incha allah dinañ fi bàyyi tamit suñu numéro téléphone ci vidéo Wazir bi comme ça képp koo xam ne da nga ubbi sa compte ba pare amagul dara nga bëgg ñu activer la ko du duñu soxlawuñu jël sa mot de li ñu soxla rek mooy sa nom de utilisateur lii lii kese la ñuy soxla sa nom de utilisateur moom nga ñuy jox envoyé ñu ko ñu activer la sa compte muy dox su fekkee da nga bëgg a dugg Wozur te duggagoo aussi dinañu bàyyi suñu lien de parrainage bi dinañ ko bàyyi fii ci suuf képp koo xamante ne ñëw nga nga bëgg a dugg foofu ci nga bëgg dugg Wazir bu la neexee nga cliquer ci lien boobu comme li lien impero bi nekkee fii dina la yóbbu ci site Wazir bi nga inscrire foofu soo amee difficulté aussi mën nga ñëw envoyer message ñu wax la naka la ñuy inscrire foofu foo mën a nekk ci senegal nag soo bëggee activer pack bu la neexee ak foo mën a nekk ci biir Sénégal am na nu som yi di toll su la neexee ñu ñëw fekk la foofu dinañ dawal suñu oto ñëw ba sa kër toog ak yow activel la sa pack nga jox ñu suñu xaalis ñu dem waaye am na nu somme yi di tollu ñun duñu mën a déplacer wu yow yaay jël suñu numéro nga envoyé ñu ko par Orange Money wala par Wave nga jox ñu sa numéro compte ñu activel la ko nga dem waaw soo demee ba war a aussi bu fekkee Wazir la nga yor xaalis fii nga bëgg ko retirer n'importe quelle heure boo ñu wooyee ne da nga bëgg def retrait su fekkee ne liquide bi liquidité bi am na fi dañ lay wax d'accord ñu won la procédure bi su ko defee yow yaay jël sa dollar kenn du dugg sa compte yow yaa koy gérer sa bopp yow yaay jël say dollar nga envoyé ñu ko ñun su boobaa ñun ci suñu compte fii lay ñëw nekk ñu jël suñu xaalis CFA ñun tamit ñu envoyé la ko waaw jàppale na daal képp ku bëgg a investir au delà de un million jëm si kaw foo mën a nekk ci senegal il sa peut que soo su fekkee ne soriwul lool lool lool jafewul hmm, dëkk bu accessible la ñun dinañ mën a dawal suñu oto ñëw ba fekk la foofu defal la activation bi waaw bu fekkee ne doy nañ la aussi bu la neexee mën nga ñu envoyer sa xaalis ñu activer la ko loolu tamit yemul ci ci euh, Wozur rek ci société yi nga xam ne ñu ngi leen di présenter fii yëpp hmm, moo xam retrait la moo xam aussi hmm, da nga bëgg a investir soo ñu soo ñu contacter dinañ bàyyi suñu numéro fii ah ñu jàppalante ji aussi ñuy ñaan aussi gars yi ñuy gëstu bu baax a baax mais ñuy insister tamit ci ñi nga xam ne dañuy dugg ci affaire yi di di investir seen xaalis waaw euh, tubaab yi ak ñun duñu benn. ñoom seen investissement seen cent dollars rek ñun suñu cinquante ay quelques mille la ay soixante mille la yooyu donc euh, bu ngeen di investir ngir yàlla fexe leen bay diversifier bañu dugg ci benn société rek yem ci waaw ngeen di dugg fii dugg fële dugg fële puisque on ne jamais mën nga dugg ci société yi nekkuñu fii bu fekkee ne da nga jël sa yaakaar yëpp nga teg ko ci benn société soo deful ndànk suy su société bi amee jafe-jafe yow aussi da ngay am jafe-jafe financière donc li gën a tey xel mooy nga jël ay ñeenti société juróom nga def ci sa xaalis commencé nag di développer loolu bañ a aussi aussi que boo dugalee ci société nga dugal fa 10 dollars nga dem ba weer wi dee mu jural la 15 dollars am nga 15 do nga 5 dollars de plus bu yàggee dina dem. ngeen bañ a déglu nag ñi nga xam ne aussi dañ leen di wax ne bu leen dugg bu leen def puisque ñun suñu toogoon ñu ñu ñu déglu ñooñu kon lii duñu ko am waaw ñaari weer si ginnaaw euh, trois cent dollars soo leen ko xoolee motul deux cent mille wala côté yooyu la ñu jël ko ñun ñu dugal ko ci euh, ñu dugal ko ci Wozur ci société bi ñu génnee ci neuf cent dollars donc bu fekkee ne deux cent mille lañ ci dugaloon ñun génnee nañ ci six cent mille suñu toogoon yore deux cent mille yooyu lekk nañ ko bu yàgg te bis ba bis tey contrat bi mu ngi dox euh, am nañ ci xaalis xanaa li ma leen di fàttee wax rek mooy ci biir Wozur boo ci duggee nga dugal ci nit lépp bépp commission boo xam ne am nga ko ci direct bi dix pour cent la maanaam soo fi dugalee nit soo fi dugee yow nga am fi compte bu cent dollars kese nga dugal fi nit mu dugal fi mille dollars yow da ngay am bénéfice su cent dollars immédiatement ci journée bi en même temps da ngay amaat beneen cent dollars boo xam ni binaire la muy deux cent dollars loolu aussi sénégalais il faut ñu comprendre lenn ñu bëri dañ may woo di naan ma est-ce que lii liggéey bu baax la. est-ce que lii euh, ndax liggéey bu wóor la ndax lii liggéey la boo xamante ne ndax dagan naag yooyu il faut ngeen comprendre lenn sénégalais yu bëri faw ñu comprendre lenn gis nga àdduna dafay dox bu àdduna di dox da ngay dox nga àndax ak moom euh, système yi nekkul système yu njëkk ya bu njëkk soo bëggee def publicité da ngay dem RTS bàyyi leen seen xel ne bu njëkk yàlla tere même bu nit gaañu woon fenn dañuy dem ci rajo yi tàggee mais léegi soxlaatul loolu bu nit gaañoo léegi looy def da ngay def statut dugal ko sa biir téléphone moins de trente minutes senegal yëpp yëg ko donc adduna bi foofu la tollu dafay avancer lii ay monnaie la yoo xamante ne monnaie numérique la actif numérique la dafa am valeur day yéeg day wàcc yow mënoo ko mënoo mu munoo topp loolu di ko xool man mënuma ko société bi ne la kaay nga jël trois cent dollars nga jox ma man ma dem liggéey man am naa xam-xam bi ma dem liggéey chaque jour trois cent dollars yi ma versé la ci trois dollars ma defal la contrat buy dem un mois wala deux mois wala un an wala six mois bëri na su six mois bi jeexee nga récupérer sa xaalis su la neexee nga ñëwaat su la neexee nga bàyyi waa léegi yow cent mille yi ngay jël nga dem denc ko fenn dénkaane ko ci jàll boutique bi wala nga jël cent mille yi di ci jënd ay téléphone yoo xam ne doo ci liggéey doo ci def dara mais nga jël ko dugal ko fii moom moo gën nga bàyyi ko foofu du la tere liggéey nga continuer dem liggéey soo demee ba mu mat cinq mois six mois boo ñëwee xaalis bi dina doon quelque chose boo xamante ne dina am leneen lum la mën a jëriñ revenu passif la nekkul loo xam ne dangay jël sa yaakaar yëpp nga def ko comme liggéey non ñun soo gisee ñun ñu mën ko ñu ngi yor suñu liggéey bopp di ci liggéey mais su ngeen gisee aussi ñun nekk di defar vidéo yi c'est parce que àdduna bi yëpp dañu ciy profité wu am na ñoo xam ne tey Sénégal ñu ngi gagné ay 1 million 2 million trois million par journée am na ñoo xam ne ci àdduna bi ñu ngi ñu ngi gagné presque lu jege un milliard de francs CFA par jour te c'est grace à lui lii nga xam ne moom moo fi nekk ci actif numérique yi lii moom moo tax ñooñu di gagné lu tool noonu donc ñun dañu am ñaari choix soit ñu jël liñ ci am soit ñu bàyyi étranger yi ñëw jël liñ ci am donc moom moo gën a tax ñuy def vidéo yi te ngeen di commenter soo leen amee lu leen jaaxal ngeen laajte puisque lii du métier boo xam ne bu bon la wala bu xaraam la wala nangam nangam dara nekku ci waaw amul benn problème bu ci nekk sa xaalis ngay joxe société bi defanteeg yow contrat chaque jour mu honoré ko nga génnee sa xaalis boobu dem jaay ko mu wecceeku ko mu nekk CFA yaakaar naa kenn ku nekk booy tukki gis nga bureau d'échange yi lan moo tax loolu am boo doon dem Màkka tey du CFA nga fay yóbbu boo doon dem gine gii du CFA nga fay yóbbu Mauritanie boo fay dem du CFA nga fay yóbbu léegi réew yooyu yëpp nag suñu dajaloowee fenn di liggéey crypto monnaie yi aussi dajale crypto monnaie yi 24 heures sur 24 7 sur 7 jours sur 7 dañuy liggéey donc euh, sujet la yoo xam ne su ma ci naree mm, wax dana jël temps. mais c'est pour rek nit ñi mën a comprendre xam ne euh, dëkk bi dafa jafe des fois nga am benn cinquante mille nga dugal ko quelque part bàyyi ko foofu nga amaat dara dugal ko fenn loolu bis mën na xëy mu ñëw nekk xaalis bu bëri boo xam ne doo xam nu mu demee li ci bon rek moom mooy man lu ma dul conseiller kenn mooy nga am sa benn cinq cent mille nga génnee cinq cent mille bi yëpp dugal ko ci société bi ñëw toog loolu moom du ma ko conseiller kenn puisque loolu ci investissement kenn du ko def man du ma ko def te man lu ma dul def du ma ko conseil kenn donc euh, vidéo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm te di leen ñaan aussi vraiment ngeen di partager vidéo yi puisque euh, am nañ yéene liggéey ci bientôt yàggatul dara di ngeen gis ne dinañ changer suñu façon wu liggéey puisque am na ay matériel yoo xam ne ñu ngi koy wut yoo xamante ne dinañu mën a permettre ñun ñii di wax ak yéen ngeen mën ñoo gis ñu mën même ñun buñ leen mënul gis yéen ngeen mën ñoo gis mu gën a nekk loo xam ne communauté boo xam ne aussi ñu ni nen lay doon soo leen gisee aussi ñu taamu mm, wolof bi di ko wax mooy langue national la ñëpp dinañ mën a comprendre ñëpp jànguñu te ñëpp bëgg xaalis donc loolu moo tax bu fekkee ne dem ngeen tamit ne ba mu neex leen mën nañ leen defal ay version français yoo xamante ne ñi jàng français la mais jàpp naa ne lépp mën nañ ko yemale ci wolof bi nit ñi mën a comprendre lépp loo xam ne jaaxal na leen boo leen ko laajtee dinañ leen ko leeralal écosystème la boo xam ne suba foofu la àdduna bi jëm kon bu leen ko ragal puisque foofu la nit foofu la àdduna bi jëm waaw foofu la àdduna bi jëm bu ngeen ci gestu di ngeen gis ne vraiment euh, fi ñu toll nii dafay jafe sax nit ku nga xam ne maîtriser wul maîtriser woo li wala xamoo ci dara sax dafay mel ni ki yow nekkuloo ci àdduna bi puisque tey euh, partout dans le monde ñu ngi koy waxtaane euh, àdduna bi nii lay demee voilà vraiment bu ngeen bëggee aussi mën nañ ci def ay zoom mën nañ ci def ay live ah euh, ñu waxtaan si kenn ku nekk poser say question liñ ci xam ñu wax ko puisque xamuñu ci lu toll ni toq puso puisque dafa yaatu dafa rëy am na ñuñ ko gën a xam maîtriser ñu ko liñ ci dugal rek moom mooy que ñun ñu ngi ci am suñu xaalis chaîne bi nga xam ne moom mooy chaîne YouTube bi rek bu ñu neexoon yem ci moom te biñ koy créer ak léegi kenn xamul kañ la yàgg na mais ñun ñoo ko développé ba mu toll fii donc yéen aussi même chaîne YouTube bi képp koo xam ne da nga bëgg a créer sa chaîne YouTube boo ñëwee mën nañ la jàppale créer la chaîne YouTube c'est vite fait ñu jàppale la woon la outils yi fan ngay jaar ah nga ñu liggéey vraiment puisque suñ ko deful aussi yeneen réew yi ñu ngi koy def yéen a ngi gis vidéo nigérien yeeg eh, congolais yeeg yëpp ñoo xam ne dañuy liggéey cent million de francs par jour ñun ñu am loolu fii fii ci Sénégal donc pourquoi pas bu ko keneen defee ñun war nañ ko mën a def puisque sàccuñu fenuñu suñu xaalis bu leer naññ la ñu génnee jox ko société muy liggéey duñu jox suñu bénéfice mu ngi mel ne tey nga dem Sonatel wala Senelec Senelec tey boo demee ne ko bon gis naa benn secteur boo xam ne war nga fa am ay clients amoo xaalis bàyyil ma jël sama xaalis dugal après yow ma am ci bénéfice su ngeen waxtaanee bu jubo mais da ngay dem mais pourquoi pas ñun aussi ñu war a mën a ñàkk mën a dugg ci secteur yooyu di ci liggéey bàyyi rek jël xaalis di ko yóbbu bon vraiment yóbbu ci boutique yeeg denc ak yooyu loolu passé na sama gars yi ah kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu ngi jéggulu tamit tey video bi xaw na gudd tuut waaw mais noonu la munoon demee waaw bépp question boo xam ne nit am na ko rek soo ñëwee dinañ ci jéem a tontu incha allah jaa ngeen jëf ba beneen yoon allah. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi maa ngi leen di mbokk yi ñu ngi leen di jaar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen euh, tey dañu ñëw ci vidéo yi ñu doon defanteeg yéen euh, di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak ñun di rafetlu lool question yeeg euh, yenn commentaire yi puisque en chaque fois rek nit ñi dañuy faral di woo wala di ñu envoyé ay message si WhatsApp di ñu laaj affaire yi nu muy demee euh, xanaa ñu am benn taxaw seetlu rek bu ndaw boo xam ne euh, dañ ci bëgg a yee sénégalais yi lu tax nekkul ne dañu gën a yeewu kenn wala dañ gën a xam kenn dara waaye euh, dafa fekk ne nit boo ko jiitoo fenn soo ko bëggee jàppale da nga koy woon fan lay jaar te chaîne bi loolu moo ko tax a jóg moo tax saa su ne ñu leen di ñaan ngeen di abonné wu ci chaîne bi di partager xam ne li ko tax a jóg du wane ne ñun ñoo fi gën a xam kenn wala dañu bëgg gën a muus kenn wala dañu bëgg a liggéey ci kaw kenn no euh, lii dañ ci yàgg puisque ñun ñi di wax ak yéen bi ñuy defar bitcoin 2008 fekk na ñu ngi commencé di di di nekk. di dugg ci YouTube di ko gis 2012 bi YouTube bi Bitcoin di génn euh, fekkoon na déggoon nañu rumeur yi xamoon nañ ko waaye nekk bu ñu nekk Afrique moom moo waral jafe-jafe yi xam ngeen ne Afrique pour nga nekk fii pour nga def yenn yi dafa jafe loolu moo waral bopp ba léegi ñu ngi ci nekk di ci liggéey wax dëgg yàlla aussi ñu ngi ciy gis suñu bopp kon suñu demee ba def euh, chaîne bi aussi c'est pour mën a yee yenn sénégalais yi nga xam ne dañuy doog a dugg ci affaire bi yeete bi tamit paasewul saa yi ñu gisee benn société dinañ analyse dinañ analyser société boobu xool ko gëstu ci ah nit nag mooy juum des fois mën nga analyser nga def lépp nga ñëw wone mu baax mën nga ñëw wone aussi mu ñàkk a baax moo tax ñuy wax tout le temps képp koo xam ne da nga bëgg investir ci en ligne gestu ci société yi ñu lay wax mais dem ci ndànk-ndànk. Euh, et puis nga bañ a bokk benn société loolu moo waral boo leen xoolee euh, société yi nga xam ne créé nañ ko fii euh, yi nga xam ne dugal nañ ay seen vidéo fii lii Spike Bay la société buy doog ubbi la ku mu neex mën nga dem nga gëstu nga xool video bi topp lien de parrainage bi soo ko toppee dina la yóbbu ci site bi comme ça nga xam société bi nga xool seen plan su la doyee ah baax na nga dem dugg ci bu fekkee ne doy la aussi nga bàyyi plateforme yi euh, yeneen société aussi ñoo ngi fi audio bi bëgg naa mu xaw a du euh, tuuti boo leen xoolee nii vidéo bi kon bëgg naa mu xaw a du tuuti lien moo nekk nii boo ci euh, cliquer bëri lu ma bëgg a xam ne bëgg naa aussi nit ñi bàyyi ci xel fii di nga mën a di nga mën a enregistré wu fii benn retrait ah, su la su la neexee aussi soo cliquer fii di nga mën a xam tudd société bi mën nga cee gëstu nga xool lii benn la ci société yi nga xam ne dañ leen doon benn la ci société yoo xam yi nga xam ne dañ leen doon euh, defal ay vidéo fii euh, am na yeneen société lu mel ne Imperio mu ngi fii Petronpay mu ngi fii yëpp ay société la yoo xam ne ñu ngi dox tey dañu leen bëgg a présenter benn société bu ñuy wax Wozur euh, lan moo waral aussi ñu dajale société yooyu yëpp mooy am nga benn cinquante mille francs mooy sa capital loo wóolu wóolu wóolu Petron Pay bul ko jël nga dugal ko foofu lu tax loo wóolu wóolu Imperio bul ko jël nga dugal ko foofu donte la société yi fi nekk yépp mel na ne moom moo ci gën a crédible puisque boo xoolee au niveau de gouvernement canadien ñoom dañ ko reconnaître comme société société bi di liggéey di wone ay information en temps réel chaque jour mu def ay euh, li nga xam ne bilan jox ko gouvernement bi yooyu yëpp gis nañ ko waaye du tere société société la rek d'accord donc euh, conseil bu ñuy jox bépp sénégalais boo xam ne euh, da nga bëgg wu ci lii pourquoi pas soo bëggee investir cinquante mille nga def fii dix mille def fii dix mille def fii dix mille bu yàggee investir nga sa cinquante mille quatre société wala cinq yooyu yëpp nga développé ndoo leen ndànk-ndànk boo amaatee cinq mille nga yokk fii ndànk boo amee dix mille nga yokk fee ndànk bu ëllëgee nga retiré fii sa xel dina gën a daal ndax su cinq société yooyu yëpp du ñu faytandoo benn yoon d'accord su ci amee benn bu fayit yeneen yi dinañ mën a Euh, société boobu dem donc yaakaar naa loolu moo gën a dal xel loolu nag suñu xalaat la rek nekkul conseiller nekkul ne dañ leen di jox conseiller financier wala ñun dañ ci am xam-xam ci côté finance ba nga xam ne mën nañ ñëw di leen wax ne dugalal fii sa xaalis wala génnee ko fii non ñun liñ leen di wax mooy loo xam ne ñun def nañ ko te def boobu ñu ko def moom moo ñu permettre tey euh, ñu taxaw fii di wax ak yéen que gis nañ ci suñu bopp waaw société bii ñu leen bëgg a tey mu ngi nekk mu ngi tudd wasir xam naa ne am bëri na ay sénégalais yoo xam ne dégg nañ ko bëri na ay sénégalais puisque nee nañ ñu jox nañ ñu sax numéro ko xamante ne moom mooy seen représentant fii ci ci Sénégal. donc bëri na ay sénégalais yu bëree bëree bëri yu ci nekk euh, ñun dañu tàmm woon ubbi fa benn compte euh, développé ko quelque temps ñu gis résultats yi ñëw won leen résultats yi puisque jàpp nañ ne loolu moom moo ëpp solo compte biñ fa compte euh, biñ fa ubbi aussi conte test la woon nekkul compte bi nga xam ne moom la ñuy liggéey réellement mais compte pour test la woon moo tax ñu ubbi woon fa benn compte bi bu ngeen xoolee total investissement li ñu investir ci compte bi yëpp mu ngi nekk trois cent dollars waaw tey jii may wax ak yéen compte bi li fi nekk c'est quarante sept dollars moom moo fi nekk waaw compte bi liñ ci retiré yëpp nga xam ne génnee nañ ko compte bi mu ngi tolloog neuf cent dollars xanaa mat na lii ñetti yoon. trois cent trois cent trois cent mu nekk neuf cent dollars loolu moo nekk compte bi il faut ngeen xam ne aussi Wozur am nañu seen monnaie bopp Wozur euh, lii ngeen gis ni moom mooy direct yi maanaam affiliation yi ñu def parce que dañu ubbi compte bi ñu doog ubbi suñu compte bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee nga xam ne de temps en temps ñun ci suñu biir Euh, su ñu bëggee su ci kenn bëggee dugg ci société bi dañ koy dañ dañuy jël compte bi ñu dugalal ko ko su ko defee mu affilié loolu moo waral lii ci suñu groupe personne ci la yem génnul c'est la première fois ñu def fi vidéo di wax ci Wozur euh, moom moo généré ni cent quatre-vingt-sept dollars suñu groupe de personne ñu ñoo def lii nga xam ne bëriwuñu Euh, lii ci binaire bi li ñuy wax binaire mu ngi nekk quatre cent quatre vingt cinq dollars lii ci binaire bi lañ ko jot suñu investissement li mu génnee gun mu ngi nekk deux cent soixante quatorze donc eggagul sax trois eggagul sax euh, cent pour cent eggagul foofu donc dama leen di woon euh, kañ lañu ubbi kont bi ma won leen aussi évolution bi ni mu demee ba fii ñu toll nii. waaw boo ngeen ñëwee fii investissement rapport boo leen xoolee compte bi ñu ngi ko ubbi le vingt huit janvier deux mille vingt un janvier kon le vingt huit daanaka février mars avril ci ñetti weer lay toll waaw bi ñu koy ubbi trois cent dollars lañ ci dugal cash. moom lañ ci dugal benn yoon trois cent dollars moom lañ ci dugal euh, boobu ba léegi compte bi mu ngi liggéey mais lan moo tax bi loolu amee tey ñun ñu am pour mën a génnee ci compte bi neuf cent dollars te ba léegi bu ngeen xoolee investissement bi mu ngi commencé le vingt huit un mille vingt et te ba léegi investissement bi jeexagul moom moo nekk nii ba léegi investissement bi jeexagul waaw donc investissement bi biñ ko biñ ko duggee le vingt le le vingt huit premier mois euh, janvier deux mille vingt et un investissement bi deux cent jours la war a durer. trois cent dollars yii deux cent soixante quatorze dollars yi dafa war a dem ba nekk neuf cent dollars puisque Wozur ñoom ñu ngi fay euh, trois cent pour cent seen seen gain yi loolu la mais ñun jot nañoo mën a génnee fii neuf cent dollars tey bu société bi tëjoon tey ñun pertuñu ci gagné nañ ci ñaari yoon te récupéré nañ suñu xaalis tey tey tey jii may wax ak yéen euh, biñ ko ubbeeg léegi bu ma tee trois mois xam naa côté yooyu la tey jii may wax ak yéen bu société bi tëjoon tey ñun récupérer nañu compte bi moom ñun pertuñ ci xaalis bo lan moo waral lool lan moo ñu may loolu te ba léegi da ngeen di gis ne dese nañu ay sept mois walla lu ëpp six mois dese nañ ko ci kanam loo xamante ne ñun dañuy continuer di récupérer fii suñu xaalis mbokk yi lii du ay caaxaan du ay waxu naxasa xandang comme ni ko yenn sénégalais yi di waxee non man ñun waxuñu kenn aussi nga ñëw nga investir fii li ñu def moom lañ leen di nettali kenn ku nekk yaay xool bu la doyee nga def bula doyul nga bàyyi société bii di Wozur am na monnaie boppam compte bi jënduñ ci bien sûr jënd nañ ci mais du ci compte bi société bii di Wizz bientôt danañu commencer di jaay ay billets d'avion seen monnaie bopp bi nga xam ne moom lañu yor ñoom Wizz actuellement boo nekkee Sénégal mën nga ci jënd crédit mën nga ci jënd orange mën nga ci jënd tigo mën nga ci jë sax facture Senelec donc yooyu yëpp mu ngi nekk ci business Wizz bi donc loolu ay ay mbir la yoo xam ne yu am solo la te it jàpp naa ne Sénégal bokk na ci réew yi gën a dugg ci biir wasir waaw puisque bëri na ay réew yi nga xam ne dañoo nekk si biir wasir euh, te bu ngeen xoolee léegi mën naa leen ko won euh, su ngeen xoolee ci franchise yi li nga xamante ne moom moo fi nekk ci senegal ci ay franchise moom laa leen bëgg woon réew yëpp ñoom ñoo nekk nii mais man Sénégal rek laa leen di woon ñi nga xam ne dañ ci investir seen xaalis nekk fii ci biir Sénégal comme saa su boobaa yéen aussi ngeen xamaale waaw gis ngeen lii ngeen gis nii ay franchise la ñii ñëpp ay sénégalais lañ waaw donc soo leen xoolee lii hmm, lii lépp ay Sénégal ay sénégalais lañu puisque wasir boo ci investir il faut nga nekk. il faut nga sélectionner réew bi nga nekk mooy senegal nga doog a jaar ci franchise yi franchise yi benn bu nekk dix mille dollars la li yaakaar naa senegal la hmm? waar dix neuf quatre vingt lii lépp ay ay ay kii la hmm? Touba dix huit safar yëpp ay sénégalais la yoo xam ne dañu investir ci société bi donc euh, voilà euh, mu ngi noonu kenn ku nekk yaa ko gisal sa bopp. investissement minimum bi cent dollars la maximum bi moom yaakaar naa ne beneen affaire la waaw puisque plan yi bëri nañu euh, am na plan boo xamante ne cent dollars ba cent dollars ba gis nga seen plan yi ñoo nekk nii cent dollars ba huit cent huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dollars neuf mille dollars ba trois mille nangam sangam quatre mille dollars soixante quinze mille dollars cent vingt cinq mille dollars deux cent mille dollars ba cinq cent mil dollars yaakaar naa foofu la yem ci investissement yi nga xam ne ñu ngi koy def euh, ñu waxoon tey ne dañuy ñëw pour defar leen rapport bi nga xam ne gis nañ ko ci société bi boobu ba léegi mu ngi ñuy fay euh, temps plus que tamit ne Wozur boo ci amee compte keneen am ci compte. mën nga jël li nekk ci sa compte nga envoyé ko ko directement maanaam boo nekkee tey Dakar wala nga nekk Tamba wala Ziguinchor foo mën a nekk ci biir Sénégal soo ubbee sa compte Wazir su la neexee nga contacter ñu ubbil rek sa compte nga contacter ñu wax ñu ne da nga ubbi sa compte da nga bëgg ñu activer la même bu fekkee ne du ñun ñoo la ñun ñoo la dugal Wazir ci keneen nga jaar bu la neexee na la jox lien d'affiliation nga dugal ko nga activer compte bi su ngeen bëggee su ngeen laajtee naka lañuy activer compte bi mën nañ leen ko defal ñu defal leen ci vidéo won leen inscription bi nu muy demee lu yomb la retrait bi mu ngi dox diggante le premier ak le 16 le chaque le premier da ngay retirer su la neexee chaque le 16 da ngay retirer su la neexee mais defuñu lool rek tëj bunt yi déedéet <coughs> dañu ne la. société bi soo ci defee retrait le premier wala le seize dina la fay sa xaalis waaye bu dul loolu soo gisee koo xam ne moom comme ku mel ni ñun boo yoree sa compte Wazir mu am ay bitcoin ay dollar nii nga ne ñu da nga bëgg a retirer su la suñu suñu waxtaanee ba d'accord da ngay jël li nga yor ci sa compte yow nga envoyé ñu ko mu ñëw fii su ko defee ñun ñu jël suñu xaalis ñu fay la naka si naka sa noonu tamit bu fekkee ne foo mën a nekk ci biir Sénégal wala société yi ñuy présenté yépp am ko bu la neexee soo bëggee retirer di nga jël suñu numéro téléphone dina nekk ci suufu vidéo yi ah, ah comme par exemple nii boo cliquer fii ma lii vidéo la bu ñu bu ñu publier vidéo vidéo bi ñuy defar nii buñ ko publier fii lay nekk soo leen cliquer fii ci plus bi plus bi soo leen ko cliquer ci suufam di ngeen gis dinañ fa bàyyi suñu groupe bu WhatsApp fii boo fi cliquer directement ci sa suñu groupe WhatsApp la lay yóbbu soo commenté fii tamit bu la neexee nga commenté fii ci suuf su ko defee boo fi bàyyee benn commentaire ñun dina ñëw ñu tontu la boo fi bàyyee sa numéro téléphone dinañ la contacter su fekkee ne da nga bëgg aussi boo jë boo duggee fii di nga am suñu numéro téléphone te incha allah dinañ fi bàyyi tamit suñu numéro téléphone ci vidéo Wazir bi comme ça képp koo xam ne da nga ubbi sa compte ba pare amagul dara nga bëgg ñu activer la ko du duñu soxlawuñu jël sa mot de passe li ñu soxla rek mooy sa nom utilisateur lii lii kese la ñuy soxla sa nom utilisateur moom nga ñuy jox envoyé ñu ko ñu activer la sa compte muy dox su fekkee da nga bëgg a dugg Wozur te duggagoo aussi dinañu bàyyi suñu lien de parrainage bi dinañ ko bàyyi fii ci suuf képp koo xamante ne ñëw nga nga bëgg dugg foofu ci nga bëgg a dugg Wazir bu neexee nga cliquer ci lien boobu comme li lien impero bi nekkee fii dina la yóbbu ci site Wazir bi nga inscrire foofu soo amee difficulté aussi mën nga ñëw envoyé message ñu wax la naka la ñuy inscrire foofu foo mën a nekk ci senegal nag soo bëggee activer pack bu la neexee ak foo mën a nekk ci biir senegal am na nu somm yi di tollu su la neexee ñu ñëw fekk la foofu dinañ dawal suñu oto ñëw ba sa kër toog ak yow activel la sa pack nga jox ñu suñu xaalis ñu dem waaye am na nu somm yi di tollu ñun duñu mën a déplacé wu yow yaay jël suñu numéro nga envoyé ñu ko par Orange Money wala par Wave nga jox ñu sa numéro compte ñu activer la ko nga dem waaw soo demee ba war a aussi bu fekkee Wazir la nga yor xaalis fii nga bëgg ko retirer n'importe quelle heure boo ñu wooyee ne da nga bëgg def retrait su fekkee ne liquide bi liquidité bi am na fi dañ lay wax d'accord ñu won la procédure bi su ko defee yow yaay jël sa dollar kenn du dugg sa compte yow yaa koy gérer sa bopp yow yaay jël say dollar nga envoyé ñu ko ñun su boobaa ñun ci suñu compte fii lay ñëw nekk ñu jël suñu xaalis CFA ñun tamit ñu envoyé la ko. waaw jàppale na daal képp ku bëgg a investir au delà de un million jëm si kaw foo mën a nekk ci senegal il sa peut soo su fekkee ne soriwul lool lool lool jafewul hmm, dëkk bu accessible la ñun dinañ mën a dawal suñu oto ñëw ba fekk la foofu defal la activation bi waaw bu fekkee ne doy nañ la aussi bu la neexee mën nga ñu envoyer sa xaalis ñu activer la ko loolu nag yemuñu ci Wozur kese ak benn n'importe quelle société salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi maa ngi leen di jaar bu baax kenn ku nekk si tur ak sant di leen ñaanal loolu tamit yemul ci ci Wozur rek ci société yi nga xam ne ñu ngi leen di présenté fii yëpp hmm? moo xam retrait la moo xam aussi da nga bëgg investir soo ñu soo ñu contacter dinañ bàyyi suñu numéro fii ah ñu jàppalante ji aussi ñuy ñaan aussi gars yi ñuy gëstu bu baax a baax mais ñuy insister tamit ci ñi nga xam ne dañuy dugg ci affaire yi di di investir seen xaalis waaw euh, tubaab yi ak ñun duñu benn ñoom seen investissement seen cent dollars rek ñun suñu cinquante ay quelques mille ay soixante mille la yooyu. donc euh, bu ngeen di investir ngir yàlla fexe leen bay diversifier ba ñu dugg ci benn société rek yem ci waaw ngeen di dugg fii dugg fële dugg fële puisque on ne jamais mën nga dugg ci société yi nekkuñu fii bu fekkee ne da jël sa yaakaar yëpp nga teg ko ci benn société soo deful ndànk suy su société bi amee jafe-jafe yow aussi da ngay am jafe-jafe financière donc li gën tey xel mooy nga jël ay ñeenti société juróom nga def ci sa xaalis commencé nag di développer loolu bañ a xeeb aussi puisque boo dugalee ci société nga dugal fa 10 dollars nga dem ba weer wi de mu jural la 15 dollars am nga 15 do am nga 5 dollars de plus bu yàggee dina dem ngeen bañ a déglu nag ñi nga xam ne aussi dañ leen di wax ne bu leen dugg bu leen def puisque ñun. suñu toogoon ñu ñu ñu déglu ñooñu kon lii duñu ko am waaw ñaari weer ci ginnaaw euh, trois cent dollars soo leen ko xoolee matul deux cent mille wala côté yooyu la ñu jël ko ñun ñu dugal ko ci euh, ñu dugal ko ci Wozur ci société bi ñu génnee ci neuf cent dollars donc bu fekkee ne deux cent mille lañ ci dugaloon ñun génnee nañ ci six cent mille suñu toogoon yore deux cent mille yooyu lekk nañ ko bu yàgg te bis ba bis tey contrat bi mu ngi dox euh, am nañ ci xaalis xanaa li ma leen di fàttee wax rek mooy ci biir Wozur boo ci duggee nga dugal ci nit lépp bépp commission boo xam ne am nga ko ci direct bi dix pour cent la maanaam soo fi dugalee nit soo fi duggee yow nga am fi compte bu cent dollars kese nga dugal fi nit mu dugal fi mille dollars yow da ngay am bénéfice su cent dollars immédiatement ci journée bi en même temps da ngay amaat beneen cent dollars boo xam ne binaire la muy deux cent dollars loolu aussi sénégalais il faut ñu comprendre lenn ñu bëri dañ may woo di naan ma est-ce que lii liggéey bu baax la est-ce que lii euh, ndax liggéey bu wóor la ndax lii liggéey la boo xamante ne ndax dagan naag yooyu il faut ngeen comprendre lenn. sénégalais yu bëri faw ñu comprendre lenn gis nga àdduna dafay dox bu àdduna di dox da ngay dox nga àndax ak moom euh, système yi nekkul système yu njëkk ya bu njëkk soo bëggee def publicité da ngay dem RTS bàyyi leen seen xel ne bu njëkk yàlla tere même bu nit gaañu woon fenn dañuy dem ci rajo yi tàggee mais léegi soxlaatul loolu bu nit gaañoo léegi looy def da ngay def statut dugal ko sa biir téléphone moins de trente minutes Sénégal yëpp yëg ko donc adduna bi foofu la toll dafay avancer lii ay mone la yoo xamante ne mone numérique la actif numérique la dafa am valeur day yéeg day wàcc yow munoo ko munoo munoo munoo topp loolu di ko xool man munuma ko société bi ne la kaay nga jël trois cent dollars nga jox ma man ma dem liggéey man am naa xam-xam bi ma dem liggéey chaque jour trois cent dollars yi ma versé la ci trois dollars ma defal la contrat buy dem un mois wala deux mois wala un an wala six mois bëri na su six mois bi jeexee nga récupérer sa xaalis su la neexee nga ñëwaat su la neexee nga bàyyi. waa léegi yow cent mille yi ngay jël nga dem denc ko fenn dénkaane ko ci jàll boutique bi wala nga jël cent mille yi di ci jënd ay téléphone yoo xam ne doo ci liggéey doo ci def dara mais nga jël ko dugal ko fii moom moo gën nga bàyyi ko foofu du la tere liggéey nga continuer dem liggéey soo demee ba mu mat cinq mois six mois boo ñëwee xaalis bi dina doon quelque chose boo xamante ne dina am leneen lu mu la mën a jëriñ revenu passif la nekkul loo xam ne da ngay jël sa yaakaar yëpp nga def ko comme liggéey non ñun soo gisee ñun ñu mën ko ñu ngi yor suñu liggéey bopp di ci liggéey mais su ngeen gisee aussi ñu nekk di defar vidéo yi c'est parce que àdduna bi yëpp dañu ciy profité wu am na ñoo xam ne tey Sénégal ñu ngi gagné ay 1 million 2 millions 3 millions par journée am na ñoo xam ne ci àdduna bi ñu ngi ñu ngi gagné presque lu jege 1 milliard de francs CFA par jour te c'est grâce à lui lii nga xam ne moom moo fi nekk ci actif numérique yi lii moom moo tax ñooñu di gagné lu toll noonu donc ñun dañu am ñaari choix soit ñu jël liñ ci am soit ñu bàyyi étranger yi ñëw jël liñ ci am donc moom moo gën a tax ñuy def vidéo yi te ngeen di commenter soo leen amee lu leen jaaxal ngeen laajte puisque lii du métier boo xam ne bu bon la wala bu xaram la wala nangam nangam dara nekku ci amul benn problème bu ci nekk sa xaalis ngay joxe société bi defanteeg yow contrat chaque jour mu honoré ko nga génne sa xaalis boobu dem jaay ko mu wecceeku ko mu nekk CFA yaakaar naa kenn ku nekk booy tukki gis nga bureau de change lan moo tax loolu am boo doon dem màkk tey du CFA nga fay yóbbu boo doon dem gine gii du CFA nga fay yóbbu Mauritanie boo fay dem du CFA nga fay yóbbu léegi réew yooyu yëpp nag suñu dajaloowee fenn di liggéey crypto monnaie yi aussi dajale crypto monnaie yi 24 heures sur 24 7 sur 7 jours sur 7 dañuy liggéey donc euh, sujet la yoo xam ne su ma ci naree mm, wax dana jël temps mais c'est pour rek nit ñi mën a comprendre xam ne. Euh, dëkk bi dafa jafe des fois nga am benn cinquante mille nga dugal ko quelque part bàyyi ko foofu nga amaat dara dugal ko fenn loolu bis mën na xëy mu ñëw nekk xaalis bu bëri boo xam ne doo xam nu mu demee li ci bon rek moom mooy man lu ma dul conseil kenn mooy nga am sa benn cinq cent mille nga génne cinq cent mille bi yëpp dugal ko ci société bi ñëw toog loolu moom duma ko conseil kenn puisque loolu ci investissement kenn du ko def man duma ko def te man lu ma dul def du ma ko conseil kenn donc euh, vidéo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm te di leen ñaan aussi vraiment ngeen di partager vidéo yi puisque euh, am nañ yéene liggéey ci bientôt yàggatul dara di ngeen gis ne dinañ changer suñu façon wu liggéey puisque am na ay matériel yoo xam ne ñu ngi koy wut yoo xamante ne dinañu mën a permettre ñun ñii di wax ak yéen ngeen mën ñoo gis ñu mën même ñun buñ leen mënul gis yéen ngeen mën ñoo gis mu gën a nekk loo xam ne communauté boo xam ne aussi ñu ni neen lay doon soo leen gisee aussi ñu taamu mm, wolof bi di ko wax mooy langue nationale la ñëpp dinañ mën a comprendre ñëpp jànguñu te ñëpp bëgg a xaalis donc loolu moo tax bu fekkee ne dem ngeen tamit ne ba mu neex leen mën nañ leen defal ay version français yoo xamante ne ñi jàng français la mais jàpp naa ne lépp mën nañ ko yemale ci wolof bi nit ñi mën a comprendre lépp loo xam ne jaaxal na leen boo leen ko laajtee dinañ leen ko leeralal écosystème la boo xam ne suba foofu la àdduna bi jëm kon bu leen ko ragal puisque foofu la nit foofu la àdduna bi jëm waaw foofu la àdduna bi jëm bu ngeen ci gestu di ngeen gis ne vraiment euh, fiñ toll nii dafay jafe sax nit ku nga xam ne maîtriser wul maîtriser woo li wala xamoo ci dara sax dafay mel ni ki yow nekkuloo ci àdduna bi puisque tey euh, partout dans le monde ñu ngi koy waxtaane euh, àdduna bi nii lay demee voilà vraiment bu ngeen bëggee aussi mën nañ ci def ay zoom mën nañ ci def ay live ah euh, ñu waxtaan si kenn ku nekk poser say question liñ ci xam ñu wax ko puisque xamuñu ci lu toll ni toq puso puisque dafa yaatu dafa rëy am na ñuñ ko gën a xam maîtriser ñu ko liñ ci dugal rek moom mooy que ñun ñu ngi ci am suñu xaalis chaîne bi nga xam ne moom mooy chaîne YouTube bi rek bu ñu neexoon yem ci moom te biñ koy créer ak léegi kenn xamul kañ la yàgg na mais ñun ñoo ko développé ba mu toll fii donc yéen aussi même chaîne YouTube bi képp koo xam ne danga nga bëgg a créer sa chaîne YouTube boo ñëwee mën nañ la jàppale créer la chaîne YouTube c'est vite fait ñu jàppale la woon la outils yi fan ngay jaar ah nga ñu liggéey vraiment puisque suñ ko deful aussi yeneen réew yi ñu ngi koy def yéen a ngi gis vidéo nigérien yeeg eh, congolais yeeg yëpp ñoo xam ne dañuy liggéey cent million de francs par jour ñun ñu am loolu fii fii ci Sénégal donc pourquoi pas bu ko keneen defee ñun war nañ ko mën a def puisque sàccuñu fenuñu suñu xaalis bu leer naññ la ñu génnee jox ko société muy liggéey duñu jox suñu bénéfice mu ngi mel ne tey nga dem Sonatel wala Senelec Senelec tey boo demee ne ko bon gis naa benn secteur boo xam ne war nga fa am ay clients amoo xaalis bàyyil ma jël sama xaalis dugal après yow ma am ci bénéfice su ngeen waxtaanee bu jubo mais da ngay dem mais pourquoi pas ñun aussi ñu war a mën a ñàkk mën a dugg ci secteur yooyu di ci liggéey bàyyi rek jël xaalis di ko yóbbu bon vraiment yóbbu ci boutique yeeg denc ak yooyu loolu passé na sama gars yi ah. kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu ngi jéggulu tamit tey video bi xaw na gudd tuut waaw mais noonu la munoon demee waaw bépp question boo xam ne nit am na ko rek soo ñëwee dinañ ci jéem a tontu incha allah jaa ngeen jëf ba beneen yoon incha allah.